bisimilah barke borom Touba mbokki téléspectateurs yi nuyuwaat nañ leen euh, fii ci Porokhane niñ ko àndeek yéen booba léegi di leen ziyaara di jiital ci ziyaar boobu ak nuyoo boobu Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir ñaanal ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñu wéy ak yéen di amal ay plateau fii ci euh, bërëbu sell bi di Porokhane lépp dañuy waajal magal gi nga xam ne moom lañ jagleel soxna Mariama Bousso Jaaratullaa ñu ñëw nag fii ci daara yi Maam Jaara ji niñ leen ko waxee sànq présentement ñu ci bureau ki nga xam ne moom mooy jëwriñu daara ji di directeur bi di sëriñ Abo Jaxate ñu fa yéene seq ak moom waxtaan lu jëm ci daara ji taarix bi li nga xam ne moo di ndongo fi jànge lim bi euh, seenum jàng naka lañ ko organiser ba ci seenu ku mokkal loolu lépp incha allah dañ ko waxtaan ak moom sëriñ bi ñu ngi lay ziar ñu bala nga nuyoo ko mbokki téléspectateur rek laata ñu tàbbi ci waxtaan wi. waaw ah, kay ngi leen di delloo nuyoo. di am mbégte ci yittewoo ngeen yittewoo daara ji ba ñëw di gëstu lu ci lu ci lu ci bokk ma mm, euh, may Abou Madiyana Jaxate di jëwriñu daara ji waaw mel ni sëñ bi euh, ni nga ko waxee daare ji tey bu ñu bëggoon a xam taarix bi kañ lañ ko fi taxawal ak kan moo ko fi taxawal ak lan moo tax mu taxawal fi daara ji waaw daara ji ñu ngi ko fi taxawal 2005 sëriñ Moustapha moom sëriñ Mouhamadou Bassir moo ko moo ko fi moo ko fi moo ko sos euh, jublu woon ci jee jamono gannaaw sëriñ Basiiru moom la sëriñ bi féetale woon Poroxaan moom it moo wutu fi sëriñ Basiiru tax mboolem ñiy liggéeyal soxna jaare ñëpp seen siyaar moom lañu ko daan jox mu di ko dajale ba di xalaat lu mu ci war a liggéeyal soxna si ba xalaat ne daal mënu koo liggéey liggéey bu gën a rëy la nga xam ne moom lañ xamee woon soxna si te moo di jàng alxuraan ak jàngale ko ak jàng xam-xamu diine ak jàngale ko mu ne xam naa bu fi nekkoon di dund ñi ñu ko tuddee dañ ko jox dañ dañ leen jox seen seen turandoo te bu leen di yar ci loolu rek leen di yar ci alxuraan ak xam-xamu diine moo tax mu nekkoon na defar euh, siyaare yi ñuy si ñu koy siyaaree te di koy te di ko siyaaree ci turu soxna si na ko ko defal ci euh, sosal daara ju mel nii nga xam ne day mel ne mu kër soxna jaara la goo xam ne gi mboolem ay turandoom fii mooy seen kër bàjjan boo xam ne gi bu ñu fi nekkee la mu yaakaar ne euh, bu fi nekkoon di dund ca la leen di yar euh, yëngu yu mel noonu lañu la jéem ñu dee jéem a yar ci loola te mooy ñu wattu loolu leen alxuraan ku ci sa wërsëg nekk ku ci sa wërsëg nekkut it ñu ñu ñu jàngal la la nga mën a mokkal loo xam ne danga ci mën a toppatoo sa diine boole ci nag jàngal la sa diine ah jàngal la it métier moo xam ne nii dana tax boo génnee doo tumuranke loolu daal moo doonoon yéene sëriñ bi ci sos gi mu sos daara ji euh, mu sos ko nag 2005 euh, waaw. voilà loolu am na solo leer na nañ muy euh, taarixu sosub daara ji waaye it ndax mun nañu xam naka la fi maam jaare yi maanaam naka la ñuy jëlee maam jaare yi naka la ñuy duggee ci daara ji pour ñu mën leen a boole ci li nga xam ne moo di jàng mi. maanaam critères yi nga xam ne moom la ñuy tànn dëgg pour nga mën a euh, euh, jàngee fi ci daara ji. waaw ah. euh, critères yi itam muy sart yi nga xam ne mooy tax nga mën a dugg ci daara ji yëpp sëriñ bee ko tegaloon boppam ndax waxoon ne ku tudd maam jaara turandoo maam jaara rek mu fiy jàng daayira yi maam jaara yi la bëggoon kenn ku ne ñoom gannaaw ñoo koy jox seeni siyaare kenn ku ne jox ko am maam jaara mu mu sos ci daara ji. ba tax na kon sart bi ci njëkk ci nit euh, man fay jàng mooy na tudd maam jaara loolu mooy sart bu njëkk bu tuddee maam jaara dafa waxoon ne bu amee ñaari at na ko way juróom bokkal ci ab daayira daayira maam jaara boo xam ne membre la ci fédération maam euh, fondation maam jaara ndax dafa sos it lu ñu tuddee fondation maam jaara muy liggéey ci kër kër maam jaara gi di liggéey ci barabu maam jaara yi di liggéey fii ci daara ji nga xam ne euh, daaray maam jaara benn yëngu la ci yëngu ci yëngu yi yënguy fondation maam jaara mu ne képp koo xam ne ki am nga sa doom ju tudd maam jaara ba mu am ñaari at yow mi wajuram na nga ko bokkal ci daayira maam jaara boo xam ne membre la ci fondation maam jaara su ko defee daayira yooyee dañuy am ay karti membre yoo xam ne mooy firndeel ne bokk nga ci yooyu ñu di ko wecci ko ñeenti téeméer bu ko nga wecc ko woo carte woowee ñu euh, carte membre woowu nga wecc ko ñeenti téeméer nag day aaje yeesal at mu ne at mu ne nga yeesalaat ko waaye la nga ko jënde woon rek nga koy la ko wecc ko woon rek nga koy at mu day mel ne kon li war euh, way jurumaam jaara bi fi nekk daal li ko war ci doomam weesuwul at mu ne mu yeesal aw kartam te ñeenti téeméer la koy yeesale kon mu ne at mu ne ñeenti téeméer daal mel na ne moom la way juru ne di def fii su ko defee nag boobu mooy ñaareelu sart euh, bi mooy na na bokk na tudd maam jaara na bokk ci euh, daayira maam jaara waaw euh, ba ci ba ko ñetteel mooy na am juróom benni at gën jaa néew mbaa juróom ñaar gën jaa bari waaw euh, su fekkee ne xale bi ba mu amee ñaari at lañ ko bokkal ci daayira maam jaara kon suy am juróom benni at day fekk mu am ñeenti carte ñu boole ñeenti carte yi ak extrait daal koy ñëw ñu bind ko su fekkee ne nag bàyyam boole bokkalu ko woon ci daayira maam jaara ba mu amee ñaari at xanaa dafa bàyyi ba mu am juróom benni at mu bëgg mu dugg te bokku ca woon ca ba mu amee ñaari at boobaa it mën na ko yóbbu waaye day jënd ñeenti carte ca gannaaw waaw faw moom ñeenti carte dal bala ñu ko bind ñeenti carte ca weesu moom lay jënd kon euh, mu mu toll tolloo carte yi mu war a am nga xam ne moo ka bind woon ba mu amee ñaari at rek ñoo tolloo ay carte su boobaa nag ñu bind ko ñu yem àq waaye mbind mi nag euh, ginnaaw boo matalee sart yépp da ngay am àq ñu bind la rek waaye taxut mu tekki ne duggagul nga ci daara ji ndax fii ñi fi jàng ba ba noppi bañ yeewi leen barab ya ñu ya ñu nekke woon lim ba nam toll rek lu toll noonu mën a duggaat masalan bu fekkee ne ñaar fukki maam jaare ñoo noppi ren ñu ñu yeewi leen ñaar fukki maam jaare barab yañ dëkkee woon la ñuy soxla yeneen ñaar fukki maam jaare yu leen fa wuutu su ko defee nag ñun bu bu ñu tolloo ci war a dugg dañuy dem ci fondation bi ñoom ñooy bind laaj leen lu ngeen bind mën nañ mën nañ leen fekk ñu bind lu man ñaari téeméeri maam jaara mbaa lu tegal. kon loolu muy liste d'attente. waaw waaw waaw day day fekk ndax képp ku ku matal sart yi rek boo demee dañ lay bind. ñoom di ñu bind rek duñ taxaw képp ku matal sart yi rek am nga àq ñu bind lañ lay bind su ko defee mën nga leen a fekk ñu bind ñaari téeméer ak nangam mbaa ñetti téeméeri maam jaara te yow fekk na barab yi nga am yu maam jaara mën a dugg fii ci daara ji ñaar fukk dong la toll ko defee nag loolu nañ koy mooy dañ naan dañ koy tegooy bant mooy li ñuy wax waaw mooy ñaar fukk yi mën a dugg gannaaw ñoom ñaar téeméer yi ñoom ñëpp ci tollooy àq eh, dañ leen di defal ay numéro di ko def tirage au sort ku sa numéro génn ñoo xam ne kii nga ba ñaar fukk yi ñu soxla ñun génn ñu ñu yem foofu ne leen ci des néeg leen ba déwén su ko defee nag su boobaa la cay juddoo mooy ñi nga xam ne juróom-benn at lañu lañ amoon ñoom bu déwénee dinañ ci mën a bokkaat ndax eh, déwén juróom-ñaari lañu la ñuy ñi nga xam ne nag bi ñu leen di bind boobu fekk na ñu am seen juróom-ñaari at yu mat tëkk ñooña dootu ñum amati taw fexe mën a dugg ci daara ji ndax bu déwénee juróom-ñetti at la ñuy la ñuy am te juróom-ñetti du dugg ci daara ji gën jaa bari juróom-ñaar la ñu wax waaw loolu daal mooy sart dugg gi ñett muy ñetti sart yooyu tudd maam jaara bokk ci daayira maam jaara am juróom-benneet mbaa juróom waaw loolu leer na muy muy sart yi muy mboolem sart yi nga xam ne war nga ko matal ngir mën a euh, jànge ci daara ji waaye ginnaaw taarix bi ak sart yi nga xam ne moom la ñu war a matal ngir tàbbi ci daara ji ñu ñëw ci daara ji nag euh, naka lañ fiy jàngee ñoom maam Thiaré yi seen jëm njàng naka lañ ko organiser. waaw njàng mi ni ñu ko ni ñu ko organiser mooy eh, maam Thiaré ba bu ñëwee bu fi duggee daal dañuy jàpp ne war na fi am juróom-ñeenti at ñu yeewee ko ci juróom-ñeenti yooyu nag ni ñu ko noosee mooy juróomi at yu njëkk yi dañ ko jagleen njàngum alxuraan te diggante bi muy jàng alxuraan du ko booleeg dara jàng alxuraan dong lay def ba keroog ma koy wattu doo ko jàng leneen waaye loolu nag ñu séddu ko juróomi at mooy gën jaa bari ki mu neex léeg mu màkkal alxuraan ci ñetti mbaa ñaari at ak genn wàll sax mu mokkal kooku taw fee waaye ki ko mokkalu ki ko xam ne am xelam neexul dal danañ ko may ba juróomi at bu juróomi at yi matee nag fu mu ko mën a fekk mu toll dañ jàpp ne cër bañ ko séddoon ci alxuraan ji mat na su ko defee ñu génnee ko ci alxuraan gi dugal ko ci njàngum diine mi ak njàngum mécc mi loolu mu war caa defaat ñetti at ba ñeent ñeenti bu ko defee bu ñeenti at bu ko fi defaatee dolli ko ca juróom yi day doon juróom ñeenti at waaw ñeenti yu mujj yooyu ci lay jàng diine ci lay jàng euh, métier ak ak ak yeneen yi mu àndal yëpp yeneen yi jàppale métier mi moom mooy muy français bi ak mathématique bi ak ñeneen yeneen yi mu àndal waaw loolu loolu daal la mooy mooy juróom-ñeenti at la fi am yoo xam ne yi juróom yi njàngum alxuraan la ñeenti njàngum diine la ak njàngum métier bu ko defee moom juróom-ñeenti at ñu yewi ko waaw fu sam njàng toll nag moom bu bu bu amee juróom-ñeenti moom ñu yewi la nu sam njàng mën a demee bu yeggee bu yëggu dañ la waaw bu dee waxtu njàng yi nag ndax gis nañ ni ñoom fi lañ dëkk xam naa dëkk waaye daañ ci ñëw mais waxtu yi nga xam ne moom la ñuy jàng waxtu yi ñuy jàng moom euh, bëccëg gi la lañuy la règle dañoo am règlement intérieur hmm. boo xam ne bii euh, ñun moom lañ leen di sant di xool ndax ñu ngi koy defam déet lu ñoom nag dañ di léeg-léeg liggéey lu ëpp lu ëpp li leen euh, sant waaye lañ leen sant mooy huit heures la ñuy xëy ba une heure bu une ñu noppalu ba ba ba quinze trois heures maanaam ci ngoon ñu tàmbaliwaat di jàng ba 18 heures muy 6 heures ñu wàcc loolu daal mooy mooy bés bu ne li ñuy jàng nga xam ne officiellement moom moom la règlement intérieur bi bind moom la ñuy euh, yi di xool ndax jàngalekat yi tënku nañ ci loolu wala déet 8 ba 1 ak 15 heures ba 18 heures ah du tee nag am na ñoo xam ne ngir bëgg seen njàngum seenum njàngum gone yi ñuy jàngal mën a gaaw dañ di jàng njël yow njël jàng ak di jàng marax waaye loolu nag ci seen coobare lañ koy defee duñ leen ci ga ñun ñun ñun en tant que direction duñ leen ci ga waaye nag ñu ci bari dañ ko di def taxawu seen gone bu ñu bu ñu bu bu ñu jullee timis ñu jàng ba reer ba noppi door a tëdd ak bu fajaree 4 heures demi mbaa 5 ñu yee leen ñu jàng waaye loolu nag ku nekk ci sa coobare nga koy defee waaw loolu daal mooy njàng wax nga ko sànq ci wàllum njàngu alxuraan gi nga xam ne euh, daanaka juróomi at yoo xamante ni alxuraan rek la ñuy jàng duñ ci duñ ci boole lenn waaye juróomi at yooyu su matee mu mokkal naka la ñuy saytoo ak mokkalam. Ah, waaw tamit ginnaaw bu mokkalee tamit ndax bind mi ci lay bokk. waaw bu mokkalee bu mokkalee ba day dem Touba tare ji ba ba ba ñu jox leen ay jàngoor ñu déglu leen ginnaaw bu leen ñi leen doon jàngal déglu déglu dégluwoo fii ba noppi. dañ am na fi am nañu fii koo xam ne euh, saytu loolu mooy liggéeyam moom it da leen di dégluwaat kenn par kenn ba nangu ne ñii mokkal nañ. bu nu bu nangoo bu ko nangoo it ñu deeru deeru eh, wutaat ab commission boo xam ne ci Touba la ñuy nekk ñu woo yeneen i jàngalekat alxuraan yoo xam ne ay jàmbur lañ ñu ñu ñu ñu dégluwaat leen waaw bañ ñoom it ñu nangu ne mokkal nañ ñu doog leen di jox ijaasab ne mokkal nañ su boobaa nag ñu doog a dellusiwaat fii nag ngir njàngum li ci topp waaw eh, ko defee nag gannaaw xas nañ seere ne mokkal nañ buñ dellusee am na ci ñoo xam ne danañ di seenum njàng eh, danañ di jongante fii dañ am nañ ab jongante bu ñuy nos fii ngir bëgg ñu ñu ñu téye ko seen mokkal ñuy jongante ñoom ci alxuraan euh, li muy tudd tudde li ñuy mus li ñuy wax musaabaqa euh, français di ko wax concours ñuy def concours danañ ko nos at mu jot ñu di ko def fii ci ci am na bu interne am na bu externe interne bi mooy fii lañ koy defee nga xam ne euh, ku ci bëgg a bokk bokk ci bu ko defee nga nga dana tax ngay nafar ndax bañ a fàtte ndax gannaaw ba dangaa bëgg a bokk ca njiit ya fokk ngay nafar ngir mën a saytu sa alxuraan concours yooyu moo ñuy dimbale ci ñoom ñu téye seen alxuraan bañ ko fàtte su ko defee ña ci at mu jot ña ca ña ca jiitu ka ce jiitu ak ka ca topp ba ca ñeenteelu kii ba quatrième euh, daraja ba ka ko ka ko yore ñooñu ñëpp dañ leen neexal ñu wut ay neexal yu ñu leen di jox ngir soññee leen ko ngir ñu mën a toppatoo seen alxuraan bañ ko fàtte ñooñu itam ña ca raw ña ca raw ñooñu bañ jox leen ay prix su ñu amee yeneen concours yu yu yu ñeneen di defit ñooña lañ cay yabal masala lu mel ne Sénégal nga xam ne dañ ko at dañ ko euh, organiser at mu jot ak yeneen i barab lu mel ne làmp Fall danañ def concours ñi ñeneen ñuy organiser concours te invité ñu ci rek sunu sunu concours yi ñu doon def fii ñun ca biir ña ca jiitu ñooña lañ cay yabal ñu ñu représenté ñu fa loola it dana tax ñu gën a téye ñoom booleen dañ leen booleeg ñu leen di encadré fii ci jàngalekat yi ngir xam ne ñii kër gannaaw ñoo ñuy demal ci ci ci concours yi war nañ leen a téyel seen alxuraan mu bañ a rëcc bu ko defee ñooñu ñu di leen di téyel ñu ñu nga xam ne fu ñu toll ñu ngi nafar ak di di leen tàggat ci ci ni ñu ni ñuy taree alxuraan ju mucc ayib loolu daal lañu am ci ci du tee nag dana ci am ay benn benn yoo xam ne bu ñu duggee ci njàngum métier mi ak njàngum diine mi seen alxuraan dana xaw a fëtt aslaf ñi ñi nga xam ne nekkuñ ci concours dina ci am benn benn yoo xam ne ndaxte ki leen doon jàngal moom génn nañ ciy loxoom jox nañ ko beneen groupe it bu mu war a jàngale alxuraan ba dootu leen tal te ñoom it sas nañ leen weneen sas mooy ñu ngi leen di jàngaloo diine di leen jàngaloo métier waxtu wañu amoon ngir daan ko nafare alxuraan amatuñ ko ba tax na kon alxuraan ji moom dañ leen ci soññi rek di ko jàng waaye ñu ñu ci bari bu fiy jógee dana ci nañ nañ nañ ko jekkoo woon dootuñu ko jekkoo noonu loolu ñi xam ne dañuy bokk ci ay concours ñoo ñoom ñooy ñooy ñooy wéy nag di ko mokkal nañ ko mokkale woon baa nu gën a rafet sax ba keroog ñu fiy jógee mais diirum ñu fi nekk est que am nañ waxtu woo xam ne dañ koy dallu di bër wala dañuy jàng at mi yëpp waaw dañuy am waxtu ñuy bër ndax nit ki nga xamee ne fête publique jàngukaay publique yi dañu am ay fête yoo xam ne daanaka yu ci bari fête chrétien la fii yëpp dañoo am ay fête yoo xam ne fête jullit la dañuy am tabxarit euh, tabaski euh, korite euh, gàmmu màggalu Tuubaa gu mag gi màggalu Poroxaan gii yooyu yëpp de ay ay fête la yoo xam ne lu ci jot am na ay fan yu ñu leen ci may nga xam ne li ñu def ci suñu règlement intérieur mooy at mi daal am nañ ci àqi fanweeri bis ak ñaar ci ay fête fanweeri bis ak ñaar yu bokkut ak alxames ak ajjuma loolu mooy seenu seenum noppalu ci at mi fanweeri bis ak ñaar yu bokkut ak alxames ak ajjuma mooy seeni feet waaw loolu loolu moom da at mu jot. dañ dañ dañ jàng vacance vacance waaw dañ am vacance maanaam bër ni ko daara yi defee ñoom seenu bër day gudd loolu tax tax euh, nawet bi fii da dul neex a nekk rawatina ci jamono yoo ko sëñ bi sanc dafa àlle woon bari yu dox ci suuf mu ragal ne gone ay tout tànk nekk fi dana jafe. mu ne kon ñaari weer yi yi nga xam ne mooy nekk ci digg nawet bi nañ koy noppalu muy août ak septembre août ak septembre moom ñëpp dañuy tëj daara ji ñëpp dem ci seen i bokk noppalu fa août ak septembre ba octobre ñu doog a dellu siwaat waaw ñun ñëpp ñuy jàngale ak ñuy jàng ñëpp ñooy def ñooy indi ay ay oto ay biis ñu dugg ci def benn convoi dem ca sëriñ ba jëbal ko liggéey bi ña benn benn ya ca euh, bind kaamil yëpp itam ñu ñu jëbal ko ko mbindum kaamil doon wax léegi mbindum wut ndax ñi ci mokkal dañuy dañ leen di beqiloo ñuy bind ci àlluwa di jox uh, ab sëriñ mu di leen toppal bu leen toppalee ci ñeenti at yi ñu fi war a defaat ci lay ñuy def loolu bu bu ko defee bu ñu demee ba ci at mu mujj ma ñam ca gis ne seen xalima rafet na te wow na mënees na ko def ci kayit ñu jox leen kayit ñu bind bu dee kenn la kenn lay doon bu dee ñaar ñaar lay doon waaye duñ ko def loo ñëpp kenn kooko nag day doon kenn koo xam ne xalimaam rafet na wow na te mën naa bind alxuraan te du ko gestu kooku nag ñu jox ko kayit mu bind waaw loolu loolu loolu moom bàyyeeguñ ko ba léegi ñu ngi koy def waaw. voilà mbokki téléspectateurs yi ñu leen fàttalee ñu ngi fii ci daara yi maam jaar ji nekk ci Porokhane di seq ak waxtaan sëñ Abou Madiane Diakhaté mi nga xam ne mooy directeur bi lépp lu jëm ci euh, daara ji sëñ bi mu mel ni euh, ni nga ko waxee leeral nga lu jëm ci taarixu daara ji ni nga xam ne noonu la fi euh, maam jaar yi di jàngee ni ñuy war a mokkalee ni leen di saytoo yooyu yëpp waaye it jamono bi mën nañ xam ñaata maam ñoo fi nekk. ndax lim bi ba ñuy door a tàmbali ba léegi day yokk saa su ne wala dañ koy wàññi. waaw lim bi bi ko bi ko sëriñ bii di sos daara ji eh, ñeenti téeméer la woon ak juróom fukk moom lañ ko sosal ci 2005. Eh, loolu la wéy di ko doon ba daaw eh, daaw mooy 2008 2018 ba maanaam 2005 ba 2017 daal loolu la mooy ñeenti téeméer ak juróom fukk muy 450 maam jaara 2018 euh, nag euh, euh, année scolaire 2018 ci lañ ci lañ yokkaat ci lañ doog a yokk maam jaare yi def ko dolli ci juróom fukk fii mu ne ni ñu ngi toll ci juróomi téeméer waaw 500 maam jaare lañ am waaw loolu la ñu am waaw. ñaata ñaata jàngalekat moo ñoo leen fi jàng. jàngalekat yi war nañoo toll ci 24 waaw ñaar fukk ak ñeent waaw. ñaar fukk ak ñeent waaw ñaar fukk ak ñaar yoo xam ne ñooy lay yor xalaqaat yi leen jàngal ak ñaar ñoo xam ne ñoo leen di feral yi ci ñuy ñaar fukk ak ñeent ci ñuy jàngale alxuraan waaw kon kon loolu mën nañ cee jàpp ne fii moom du doon njàngum gumba li nga naan da mokkal te doo mën a bind wala doo mën a uh, ijji. déedéet njàngum gumba lu ko doon ndax dañoo am classe boo xam ne bi fer ijji dong ñoom la ñuy def feral ijji rek bala nga bala ñu laat bala ñu leen a séddale leen jox jàngalekati alxuraan yi dañoo am classe bu ñuy jaar muy at mu njëkk bi ñu ñu jàngal leen fa bañ fer ijji xàmmee bu baax a baax a baax araf yi xàmmee nuñ koy tudde uh, defar seenu làmmiñ ci niñ koy tudde ci maxaarij yeeg yëpp maxarijul xuruf doog leen a nag séddale nag jàngalekat yi ñu jàngal leen muy njàng mi itam doonu njàng moo xam ne ci njàngum cosaan ma la nga xam ne dañ koy jàngee nu mu leen soobee déedéet njàng mu ñu rafetal njàngin wi la moo xam ne day dëppook na mu doon wàccee ci jamono yonent bi sallallahu alayhi loolu la ñuy wax tajwid dañuy taj tajwid waaw tajwid tamit euh, riwaaya bi ñu tànn di ko di ko tajwid te mooy riwaayatu warsh waaw warsh mooy bi nga xam ne moom sunu mag ñi moom lañ doon jànge léegi nag euh, am na yeneen i nag yu bari yoo xam ne euh, réew eh, réewi jullit yëpp foo dem am na ci ñu ca tànn di ko jàng waaye fii yooyu fi gënoon lëng ca mag ñi moo tax ñu di ko bark bëgg koo barkeeloo ci njàngeenu mag ñi tax riwaayat warsh moom la ñuy jànge waaw loolu itam riwaaya boobu itam eh, ñëpp ñëpp nag ci waa daara yi ci lañ tënku di ko jàngale xale bu fi ba ma wattu bu ne it mën na mën na mën na mën naa taj wit ci riwaayat warsh loolu moom loolu loolu yàlla dimbalee nañu ko mën na mën nga xam tamit eh, li fi jot a mokkal daara bi mu kii ak léegi ak surveillant yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di saytu li nga xam ne moom moo di liggéey bi. waaw ñi fi jë ñi fi jot a mokkal war nañoo toll fi mu ne ci ñaar téeméer waaw mbaa ñaar téeméer yu tegal ñaar euh, ba ñu ubbee ak léegi waaw daaw rek 28 euh, mokkal nañu boo boolee daal li fi at mu ne mu ne daal lim lim yi du tolloo léeg-léeg lu mën ñaar fukk léeg-léeg ñaar fukk ak nangam 26 euh, mbaa ba 7 mbaa ba ba daaw rek 28 ñoo ñoo génn. ñoo ñoo mokkal euh, loolu lépp boo ko boolee dana toll ci ñaar téeméer fi mu nekk nii war nañoo yegg ci ñaar téeméer ba bi ñu ubbee daara jeeg léegi ñu fi wattoo alxuraan waaw dafa mel ni tamit am na ñoo xam ne dañoo mokkaloon ci daara ji wëlbati ko ñu jël leen fi ñu fiy jàngale loolu man bi fi ñëwee léegi maa ngi ñëw euh, jeex jee jeex jeexalu jeexalu atum 2014 euh, daanaka tàmbali 2000 2015 laa fi laa jiite man daara ji waaye boobu ba léegi jël naa fi lu war a toll ci fukki fukki fukki jàngalekat yoo xam ne yëpp ci ñoom la waaw fii la jànge ba mokkale fi génn ma jëlaat leen fi ñuy jàngale ndax ma ñuy dema ne li ma bu soobee yàlla gannaaw ay jigéen rek a fi nekk du ma jëlati jàngalekat bu bu góor jigéen rek laay jël jigéen ji su ma mënee am am maam mu fi jànge du ma jël keneen ndax sëñ bi gannaaw daa bëggoon bu ñu fi jógee du ñu tumuranke euh, kon wàllu emploi it ci la bokk euh, ngir ñu créer emploi nag moo tax ma ma may def loolu ngir bëgg ñoom euh, ñun ci mën a jël ñun ñu jël leen ñeneen ñoo xam ne ñi bëgg nañ ay jàngalekat yu yoo jigéen yu mën alxuraan itam danañ bari na ay daara yuy sàkku ci ñun loolu di ñu ko laaj ñu leen di booleeg maam jaar yi ñu leen di jël ngir bañ ñu ñu ngir bëgg ñu am lu ñu def ba duñu tumuranke waaw. ba léegi gis nañ ne euh, daara ji am na ay surveillant comme ni ñu ko waxee sànq ak euh, directrice des études ñoom it seen taxawaay ci daara yi lan lay doon. waaw li ñu amee personnel euh, bi nga xam ne mooy mooy jàngalekat jàngkat yi. Euh, maam jaar yi noonu la am personnel am am ay jàngalekat muy personnel enseignant noonu la ñu am personnel administratif personnel administratif bi mooy moom juróom-benn rek lañu directeur général la ak ak ak ak ak ak gestionnaire ak directrice des études ak surveillant général ak euh, ku ñuy tuddee assistant pédagogique waaw ak euh, ak benn am nañ benn assistante sociale ak secretaire waaw ñooy ñooy ñooy administration bi waaw ñooy ñooy ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu njàng njàng Mandiar tamit gis nañ ne bërëb bi fi la ñuy fanaan fi lañ fi lañ nekk daal dañu ne internet euh, seenu nekkin tamit euh, ndax mën nañ koo xam ndax am na ñoo xamante ni ñu leen di jàppale la ci euh, niñ fi nekkee ndax day bari ay tànk yoo xam ne day am lu war seen digganteeg ñi nga xam ne ñoom ñoo leen war a yore. waaw wàllu wàllu nekkin wi gannaaw bi bi ñu fi ñëw rawatina jamono yi daara yi tàmbali boobu ñoom ñëpp ay tutànk lañ ñëpp ay diggante juróom-benn rek juróom-ñaar lañ am. mënaluñ seen bopp dara moo tax sëñ bi dafa xalaatoon ne faaw ñu am ñu leen ñu nekkal ñuy dëkkal mm-hmm. eh, ngir ñi ci mënalu dara mënal si mënalu seen bopp dara ñu mën leen a laddante mm-hmm. moo tax mu xalaatoon ay ndayi daara néeg bu ne dafa def ay ndayi daara ñuy toll ci fukki fukki ndey ndayi daara ak juróom waaw bu ko defee ndey daara yooyu lañ lañ leen fi indee mooy ñuy wéttali gone yi ci seenum néeg bu guddee bu ñuy bu guddee bu ñu tëddee boobu guddi ku ci ku ci jàmbat dara boppamay métti mbaa biir may métti wala yu demee noonu kooku mën a ñëw déclaré ko ñu mën ko dimbali. Euh, koo ci xam ne kii itam soxla naa dem wanag ba noppi xëy na tout tànk ga tax mënut a defar boppam mu koo defar euh, koo ci xam ne kii euh, nu mu tudd bu lekk jotee itam ndey daara yooyu ñoo leen di jëlali seen i seen i añ ak seeni reer ak seen i ndékki ca ca ca waañ wa di leen ko bu ñu bu ñu kenn ku ne boo ñëwee. ndey daara ju ne boo ñëwee sa doom yañ la booleel nga dajale leen ba xam ne kenn manqué nga jox leen digal ñu ñu jëfandiku euh, ju ci nekk it néeg ba nga nekk yaa koy bale di ko nettoyé ba mu set bu maam jaar yi demee jàngi nga lalaat lal ya maanaam ñoom day mel ne daar ndey daara yi euh, euh, gone yi daal def loo wuñ dara def loo wuñ leen dara lu dul jàng ndax koo xam ne lal ba ngay tëdd sax dañ la koy lalal wax dëgg yàlla moom moom jàng dong daal lañ leen li leen sant te seen dara yi wut nag ak yëpp sëñ bi dafa yónnee woon xool ñiy jàng ci université yi nga xam ne foofa la ñuy interné wu mu laaj naka la ñuy doxale seenu ñam menu ya ñu yor ñu jàngat ko xool ñu ñu ñu ñu ci am expérience ba ñu jàngat ba gis menu boo xam ne bii euh, lañ ciy jëfandikoo lépp lu nutritionnel la lay doon nga xam ne ferñeent yi nga xam ne euh, yaramu doomu aadama dina ko war a soxla am na ca ñu ñu dajale ko bis bu ne lañ cey aña ak lañ cey reere bokkut ak bis ba ca topp la ñuy añ ak la ñuy reere tey jii di bisub lan alxemes tey gone goo laaj mën na leen a tey nangam la ñuy aña nangam la ñuy reere boo ko laajee ajjuma dana la wax leneen boo ko laajee gaaw lu ngeen di añ ak lu ngeen reere dana la wax leneen noonu nga koy toppee ba ah, ba semaine bi jeex waaw doon noonu wax dëgg yàlla ci wàllu wàllu nekkiin wi noonu la seenum paj itam lépp daara jee ko jëlaan sarge euh, ku ci wopp euh, léegi sax egg nañ ci bu njëkk bañ ko amatu dañ leen di yebal ci poste de santé bi ak Nioro centre de santé ba fa nekk ñu fay fajoo ordonnance yi ñu leen bindal daara jee koy jënd waaye léegi yàlla baaxee nañu itam sax bañ am ab infirmière d'état mu ngi fii di fi faj yàlla baaxee nañu itam ba infirmerie bi gis ngeen gisal ko seen bopp infirmerie bi nga xam ne ay bokki talibé yu nekk Amérique ñoo ko liggéey mu toll ci noppi ñu équipé ko itam la xam naa bu ñu amee fajkat ya ca war wàll googu itam danañ ci dana gën a dana gën a taw feexe waaye daal seenum paj ak lépp daal sëriñ bee ko jël maanaam amu ci dara jenn aajo joo xam ne ji daal euh, maam jaar dana ko am ñu di ko delloo waay juram am na ci sax euh, lu gën a lu lu daw yaram ndax danga nga ci gis ñoo xam ne seen i euh, wayjur seen loxo jotul seen gannaaw ñu ñu nekk fii ba vacances jot ñaari weer yi ñu noppalu ñu dem ci seen i bokk dem wéeré di fa ñu yóbbu leen ci docteur mu bindal leen ordonnance ñu jox ko seen bàyyi seen bàyyi delloo leen ko ne leen da ngeen koy téye ba ba bu ngeen weddee bu ngeen demee ngeen jox ko seen directeur hmm. mu jëndal leen ko waaw ndax xëy na loxoom jotul ginnaawam te ñoom hmm. seer na ci moom loolu hmm. loolu loolu loolu ngi fi am waaw sañ sëñ bi mel ni tey jii euh, ki nga xam ne moo di Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir ñëw na nemmeeku si daara ji waaye mel ni tamit am na ay euh, chantier yoo xam ne naal nañ ko fi sëñ bi visité na chantier yooyu ndax mën ngañ ci indil ay leeral waaw euh, moom it bi nga xamee ne Cheikh Mamadou Mountakha andi na nu fi nun Euh, te ñu fekk am ñu ñu fi jiitu woon mm, ndax ni ma la ko waxee 2015 la ma fi sëriñ bi indi euh, bi ñu ñëwee fekk nañ tomb yi nga xam ne moom la sëriñ Mouhamadul Moustapha Bachir tombo tombaloon daara ji te mooy nañu fi wattu alxuraan bu ñaareel bi mooy nañu fi jàng seen diine bu ñetteel bi mooy nañu am métier ma gis ne ñaari tomb yu njëkk yi lu bon bon am na ci ay jéego yu ñu ci dox firndeel nañ ko ndax. 2007 euh, bi mu fi daataan jógee rek moom sëriñ bi sëriñ Mouhamadou Moustapha ci boppam euh, fekk na ki fi njëkk a ma wattu alxuraan wattu na ci teewam ci ci dundam mu door fay jóge te boobu ba léegi at mu jot am lim bu fi wattoo kon ma xam ne loolu moom euh, maanaam objectif la boo xam ne atteindre nañ ko maanaam hadaf la boo xam ne bi jot nañu ko ah la ca ba ca topp mooy njàngum diini bi moom itam donte mënees na koo gën a dooleel lañ cay xam di gën a yaatu waaye am na lu ñuy xam ñu indi fa xam jàngalekatu jàngalekatub diine mu leen jàngal am na lu ñu ciy xam ma gis nag la nga xam ne nag dox ci jéego bu am solo defaguñ ko mooy njàngum métier mi loola ñu di ci topp amuñu ay moyens yu ñu ko defee waaye ñu daal di fa benn salle de classe xaaj ko benn bi ñu def ko restauration bi def ñu def ko couture ngir ñu di ci def apprentissage di leen ci jàngal lu bon bon dara ci ñaar yooyu ndax ngir màggale ko ba baatu sëñ bi rek waaye xam nañ ne amuñu moyens yi ndax dafa diis ndax bu dee njàngum enseignement général mi boo amee classe amub jàngalekat da ngay daal am la nga bëgg waaye bu dee euh, formation professionnelle dangay ngay am classe euh, classe bi ñu faw mu am équipement. Mm. ci filière bu ne. boo amee équipement ba noppi faw nga am ay formateur waaye boo amee formateur foog nga am produit yi nga xam ne filière bu ne moom lay aajowoo. Ah, booy jàng booy pratiquer waaw booy pratiquer faw nga bu doon dangay ngay togg faw nga ndugg. Mm. te bu dee dangay ñëw faw nga jënd ay tissu faw nga am ay machine faw nga jënd ay wëñ faw nga nangam nangam. yooyu mooy yooyu nga moo tax mu diis diisaay goo xam ne gi naka jekk xaw nañ ci am ak néew doole waaye mooy jéego bi desoon ci li sëriñ bi bëgg ci daara ji yàlla def na moom Cheikh Mamadou Mountakha bi fi ñëwee dox nañ ci ay jéego ba loolu yitte jooju ñu di ko ko xamal ba euh, yàlla def na defal nañu fi léegi ab centre de formation moom la doon seet si tey jii di ko nemmiku si yegg na bañ jox ñu caabi ji euh, équipement ba cay war a dugg it tàmbali na caa dugg ñi cay jàngale itam tàmbali nañoo ñëw euh, la ca mëntu woon a ñàkk itam te mooy ndox mu doy sëkk ngir wàllu maraîchage ak yooyu ñu mën koy def te mu bokk ca euh, filière ak wàllu élevage ñu xam ne yooyu yu aajoo ndox la euh, yooyu itam suñu yite daadi doon ndox moo xam ne mi fii lay yem ci daara ji loolu sëriñ bi dimbali nañ ci ba gis ngeen forage ba ne xam naa euh, tàmbalee waaye bu bu gis ngeen ji nañ ko ba ndox ma xelli ngeen seen ko waaw loolu mooy tekki na bu ma màggal gi jàllee lu ca topp rek day daal di day daal di sotti waaw su ko defee loolu bu sottee day day bi jéego bu mujj boobu nga xam ne moo doon formation professionnelle bi dañuy daal di am lañ ca soxla woon lépp mooy forage soxla woon nañ ko ngir loolu mën a am soxla woon nañ ab centre de formation bu répondre ci norme yi nga xam ne moom la centre de formation yi am ci ci ci ci réew mi euh, soxla woon nañ ñu équiper ko soxla woon nañ ñu am ci ay formateur loolu lépp day mel ne bu xasee ba am daara ji day daal di jox da dox beneen jéego boo xam ne bi révolution lay doon ci njàng mi ñu ci bëggoon danañ ci daal di am euh, soobu yàlla danañ yàlla danañ ci defal tawféex ba daara ji doon jeneen am beneen xar kanam am jeneen jeneen yeneen yeneen yeneen yeneen melokaan woo xam ne Euh, xolub sëriñ bi dana ci gën a sedd bu soobee yàlla maam jaar yi fi dugg di génn seen i wayjur seen xol dina gën a sedd ndax danañ génn danañ mën alxuraan bu baax danañ xam seen dine bu wóor waaye danañ génn métier mu wóor it moo xam ne euh, dana dox seen digganteeg tumuranke ne ko sëriñ ci ne ko sëriñ bi bëggee woon loolu loolu wàllu ko wér-gu-yaram gi itam bokk euh, forage boobu itam bokkoon na ci li tax sëriñ bi ñëwoon tey di ko nemmiku Euh, bokk na ci li tax mu ñëw tey di dinu nemmiku muy infirmerie bi muy fa waaju fajukaay bi moom itam nga xam ne bokki taalibe yu ñoo ko fi def moom itam bokk na ci li tax mu ñëw tey di ñu di ñu nemmiku ak nemmiku liggéey bi njàng meeg yooyu fu mu toll nga xam ne at mu jot ko baaxoo woon a def su ko ko yaramam mayee waaw daa mel tamit gis nañ fi bâtiment boo xam ne ay dortoir lañ waaw loolu itam ci sémbu mooy sémbu nag mu mag mi nga xam ne moom lañ am fi mu ne nga xam ne képp ku ñuy jàppale euh, foofu lañu lay woo ndax dañoo gis ne ay sald de classe euh, ak euh, soxla woon nañ ko euh, waaye ñu gis ne Serigne Mouhamadul Moustapha bi mu bi muy tàmbali liggéey bi dafa bëggoon a liggéey ay ay salle de muy fi ñuy jàngee liggéey ay dëkkuwaay waaye yàlla def mu mu mu yoon wa yàgg liggéey bi ñuy liggéey ñu tàmbalee ci liggéeyu liggéeyu jàngukaay yi muy salle de classe yi bi ñu ko liggéeyee ba noppi te xëy na boobu mu jëm mag. boole kook euh, euh, wér-gu-yaramam demewul noonu te bëgg naa fekkee euh, gis meññitum yàkkamti naa fekkee meññitum li mu doon yëngu mu daal digle ne nañ tàmbali nañuy mën a tàmbalee boobu mooy salle de classe dong gannaaw moo fi mu ne nañ ko xaaj genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loolu tax go genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko mm-hmm. kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu xàll foofee euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy door tuwaar bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi woon ñu delloowaat ko muy salle de bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe dëkke woon yëpp ñu delloo ñu ko ñu delloo si ko mu di salle de classe defe naa lépp lu ñu soxla ci daal salle de classe danañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fale mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortuwaar yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne. waaw na sëñ ñu lay sant bu baax di la sa kàddu yu mujj rek lan lay doon. waaw sama kàddu yu mu yu mujj mooy rek sant leen ci yitte gi ngeen yittewoo gi ngeen yittewoo daara ji ba boole ko ci seeni i soxla di tasaare ab liggéeyam di di tasaare liggéeyub sëriñ bi eh, di tasaare liggéeyub lislaam ndax loolu la liggéeyub lislaam la eh, ngir képp koo xam ne kii bëgg nga bëgg nga lu baax. bëgg liggéey bëgg a liggéey bëgg def sa alal ci yoonu yàlla nga xam ne barab buñ ko boo mën a defee sa alal ci yoonu yàlla itam mi ngi fi mu ngi nii euh, sémbu la moo xam ne seen mu sémbu mu mag la ñëpp mën nañ cee barkeelu sëñ bi sémbu na ko te xaaru ci kenn mi ngi si lu ko waaye sësu ci kenn dara it waaye lu lu waaye lu ko waaye joxit mu defal la si loolu loolu daal mooy sama sama sama sama baat yu mujj di leen sant bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Abo Jaxate waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa jërëjëf ci kàddu yu am solo yi mu jëm rek ci euh, daara yi maam jaara yi leeral yi am na solo ci bañ ko sosee ni nga xam ne noonu lay doxee jéego yi ci def chantier yi nga xam ne lañ ci naan li ci jot noppi loolu lépp leeral na ko mu nekk lu am solo loo xam ne mbokki jullit yi mbokki taalibe yi war nañ koo xam ci daara ji nga xam ne ni mu ko waxee lu toll ci juróom téeméeri maam jaara ñi ngi di jàngee te seen lépp sëriñ bi la war mu yor ko ndax laaj ci kenn euh, ay waajuram li nga xam ne moom moo jëm ci seenu tàggatu ñu jàngal leen alxuraanul karim waaye formation professionnelle bi nga xam ne léegi dañ ko cee yokk ñu leen di bu baax a baax di leen gërëm ci ànd ngeen àndoon ak ñun di sant suñuy mu cadreur Mountakha Ndiaye Gabon ak Daouda sant leen bu baax ci teewlu gi ñaanalaat Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mbooleem naal yi nga xam ne naal na ko mu matal ko ànd ko taalibe yi ba naal yeneen i naal yeneen yeneen yeneen ci barkeb Cheikhul Khadim ñu leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf